Yeah.

wu daal ci li nga xamante daal mooy Abdoulaye Wade bàyyi na leen ko comme li nga xamanteni moy héritage ginnaw inculture politique lâcheté ignorance ak lepp lo xamanteni dafa conjugué wu ci tyrannie ginnaw bi nga xamanteni mënul conduire dara lo xamanteni ni incongruité la jëmele ko ci ay délire yu incohérent irrationnel Karim Wade dafa làqatu honteusement ci ginnaw li nga xamanteni moy mooy jëmele ko dal ci néolibéralisme bi ñu contesté franchi Rubicon le ko dal ci opté ben naviguer opté ba noppi navigué ci li nga xamanteni moy nouveau di nga xamanteni mo nek nekk hors texte fondamentaux yi nga xamante dans le PDS Daldi di na koy été suñu sukkandikoo ci ay yu qui di Karim Wade l'acheté dans la indi boo xamante ni amul benn commune mesure Daldi di abusé ci ay faiblesse yoo xamante papam bi nga xamante ni ay atam par ailleurs secrétaire général national bu PDS utilisé dans daal signature pour dire ay une décision. continue arbitraire la dans di terminer ay image. yoo xamante dañu carrière de ko daal lu légendaire là ginnaw nak li di texte biñu publier mu def dal ben prétendu exclusion woné ni ka dal insuffisamment jëmele ko ci combat bi nga xamanteni kay di PDS porte nako jëmele ko ci kabu élection yi du dara lu du légitimité mais lepp lo xamanteni dal parti bi ak instance bi sukkandiku nañ ci dal dinañu dajaloo depuis ay bëss yo xamanteni ak ay at pour permettre ñu jël ay décision yo xamanteni de telle gravité la mu doon ben mensonge bo xamanteni dafa constitué jëmele ko dal ci li nga xamanteni moy fédération yi prononcé wu jaarale ko ci li nga xamanteni moy confirmation ignorance jëmele ko dal ci commande commanditaire boo xamante ne amul usage volonté dara la ko lu wax yu safaanoog deug pour ñu mën agir contre ay honnêtes militants yo xamante dal du dara lu dul ay fen yo xamante de 2018 ginnaw li nga xamante moy nationalité bi nga xamante encore def na frais daal di sukkandiku comme ni ko tuddee le ridicule ne tue pas naka la ñu mën a prétendre exclure ay militants ay responsables yoo xamante ni bu parti démocratique boo xamante ni benn patrimoine national la africain sans évoquer li nga xamante ni mooy article texte bi ba noppi dal di régir ci consommant li nga xamante ni daal violé nañ ko jëmale ko daal ci prétendre li di héritage bi jaarle ko daal ci décider volontairement li nga xamante ni daal mën nañ ko tudd dañ ko war a saborder muy ay actes yoo xamante ni posé nañ ko caractérisé ko ak ay multiples collisions jëmale ko daal ci ay adversaires yoo xamante ni amuñu mandat wu parti bi ci violation systématique ay texte texte yoo xamante ne tey nañ ko wootee ay conséquences contestation ak li nga xamante moy auto exclusion comme li nga xamante dal meun mën nañ ko comprendre espace la bo xamante ci diiru at Karim daal dafa passer adversaire irréductible jëmale ko dal ci li nga xamante moy benn bokk yaakaar complice bi nga xamante benn putsch raté la jëm ci ay adversaire ñi nga xamante ne mooy nouveau Benno Bokk daal di soutenir lii di parti bi di Pastef tey ñu doon adversaire u Pastef dem allié ak ñi nga xamante ne mooy Alliance pour la République mu doon histoire boo xamante ne dafay retenir jëmale ko daal ci les grands traits de l'histoire politique du Sénégal du dara lu dul li nga xamante ne ñoom ñoo fen seen ay milliers de militants ginnaaw nag ay militants la yoom dañu liggéey pour laver li nga xamante ne mooy à grande eau contre li nga xamante ne daal dafay retourner waat contre ñoom PDS daal dafa bañ bépp diversion jëmale ko daal ci rester déterminé daal di jàkkaarloo benn cap de sauvegarde indi héritage boo xamante ne général national maître Abdoulaye Wade de ko ci perpétuation ak œuvre yi nga et ni du service dara dul Sénégal en Afrique muy la page boo xamante Karim ci va moo ko irréversiblement jëmale ko daal ci sénégalais avec ak ay militants ak militantes authentiques nous donnent le sérieux souci d'aller di perservation j'ai persévération le ko daal ci benn œuvre bi nga xamante avec Wade honneur ak dignité bi nga xamante ni parti bi ak membres aboutir nañ ko ci patience pour xamante dans une sonn ci ay fen mi manipulation yu inte ki ko le ñii nga xamante ni dàq nañ muy Tafsir secrétaire général national adjoint ak euh, chargé des relations internationales Doudou Wade secrétaire général national adjoint chargé des conflits Awa Abdulba secrétaire national chargé de l'économie numérique ñoom daal ñoo ko signé xamle ko depuis le 28 septembre joxuñu ñu baaraamu tuuma kenn ku dul nga xamante Karim Wade.